bisimilah rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokki téléspectateur u Thiénaba TV nuyu nañu leen ziar leen jox leen seen wàccuwaay kon xam ngeen ne fi ñu toll nii rek ci waxtu wi ñu ngi waajal li nga xam ne moo di gàmmu kër Ndiaga Sarr moo war a doon samedi le di 17 février 2024 loolu tax taxlat ki nga xam ne mooy porte parole El Hadji Ngagne Demba saar yor ay teraanga yoo xam ne da ko fas yéene jox ki nga xam ne mooy euh, Serigne Baye Omar Niang nekk xalifa Mame ba Niang loolu moo waral Thiénaba TV ñëw ngir fas yéene yëkkati teraanga boobu teg ko ci loxo Serigne Modou Biram Diop na xam ngeen wàccaay ñu ngi ci wàccaayu gàmm gi loolu moo waralat sëriñ Omar Niang daal di jiitu foofu ca kër njaga saar kon léegi léegi lay doon kàddu yi dañ koy jox El Hadji Modou Biram Diop. <coughs> mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. dellu si waat noonu ni ko daan defee saa lu mel ni ëgsee te mooy xéewal gu xam ni lépp lu xew ci dëkk bi ak li ko wër. alxaaji Demba Sarr dana ci dugal loxo xam ngeen am na fu bari fu nu ànd ak yéen ngeen di ko seetaan tey nag noo ngi fii ci wàccaayu kër Ndiaga Sarr dëkku maam Ahmadou Bamba Niang waaye ci kilifteefu sëriñ Omar Niang mii di xalif maam Ahmadou Bamba euh, loolu tax na ba ngañ def na nam daan def def ko nam ko doon defee jël ay teranga mu ngi noonu ngeen di xool jëmale ko ci dëkk bii di kër Ndiaga Sarr fa tabaarakallaahu jàppale ko kii di Baye Omar mm-hmm. euh, ca gan ña nga xam ne ñooy rot si mm-hmm. xam nga Baye Omar fa tabaarakallaahu mm-hmm. yan bi diis na gan waaye ñu ngi ñaan ci yàlla suñu borom yàlla na yàlla woyofal ko ñoo ngi jëlaat cantu Baye Omar ndax dafa waxoon ni lii bu ñëwee nañ ko recevoir kon ci kàddu yi nga xam ne kàddu yi cant yi ñu ko war a delloo ngay saar man mii maa ko war a wax man mii nga xam ne lii sama loxo la jaar jëm ca moom ñu nag mu boole na ko ndax ndax man mii wax ni am naa ci moom it mu am ci waaye lépp di benn ñu sant ngañ gërëm ko ñaan ci yàlla sunu borom subhaanahu wa taala yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam yokk wërsëgam bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lu mu man ren yàlla na man déwén lu ko ëpp ak képp ko xam ne yéene ko ko bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Baye Alpha jërëjëf El Hadj Baara ci liggéey bii ngeen di liggéey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jërëjëf El Hadji Modou Biram Diop ci kàddu yu matale yooyu comme niñ leen ko waxee woon rek ci tàmbali ba waxtu wi ñëpp ñu ngi waajal gàmmu kër Ndiaga Sarr bi fas yéene nekk le samedi 17 février 2024 loolu moo tax la ki nga xam ne mooy porte parole El Hadji Ngagne Demba Sarr yëkkati ay teraanga ngir euh, dimbalee ko ki nga xam ne mooy xalifa euh, Mame Bamba Niang muy Sëñ Omar Niang mi nga xam ne euh, jiitu na ca dëkk balat di kër Ndiaga Sarr ngir ñu gën a waaj li nga xam ne mooy bisu gàmmu gi moo tax lat ñu jël teraanga yi teg ko ci loxo loxoy Modou Biram Diop ngir mu jottali ko ko kon lii mooy li nga xam ne moom lañ leen jël si loon fii eh, ci Canaba kon jaajëfal nañu leen. sant ak ngërëm ñeel na leen ci ànd ak ngeen di ànd ak Canaba TV. wala say bi ahadun yab.